bëkki dem ba léegi kenn noppalu ko wut gis nga tey waañ wi ni mel yaakaar naa sarax soo xamante rey na ci juróom-ñetti nag dégg nga maam euh, togg ci dégg nga maam téeméeri mën na yaakaar a weesu nag euh, mbooloo mu nekk rek su ñëpp ñaane yàlla du ñàkk ñaan ko ci ci barkeem waaye di ñaani dégg te faj a ko ci barke alxuraan ñu ngi ñaan yàlla baax mën a wax rek euh, baaxu sens moom Euh, tu tànk yëpp dégg nga waxuma sax jigéen ñi waaye góor ñi sax ñoo war a xool ci Soxna Xadi Baara dama daan wax ne yoru cëru góor cëru jigéen la yor loolu daan wax naka jekk soo seetee Soxna Xadi Baara nekkoon nekkoon na nit koo xamante ne nii dégg nga ci yitteem dégg nga ci yitteem ak yéeneem dégg nga ak parce xam ne dégg maam euh, doxinu jigéen waaye doxinu góor la doon doxee waaw kon nag dégg li ci am solo maam mooy dégg nañu roy ci ay jikkoom baax ci ak bëggam lu baax ci yitteem ak yéeneem bëggoon lislaam jëpp nag Soxna Xadi xamutoon laay xamutoon tijaan euh, mu ñaan la bëgg-bëggam kenn bëgg-bëggam yëpp yàlla woon ak yonent Sëriñ Tuubaa ko yóbbu hôpital a laa takk loolu loolu ko daa tontu waaw kon nga xam maam foofu rek maam moo nekkoon jubluwaayam moo nekkoon dégg gis-gisam moo nekkoon tolluwaayam waaw kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek waaw di sant nag kilifa yëpp nag mboolem kilifa diine yëpp nag ñu leen sant di leen gërëm ci turu Sëriñ Tuubaa Cheikh Modou Mountakha Mbacké